Masterchef Aïda, set. 7. moi, mon triangle de l'écran fromage de l'écran buy soog te bàyyeekoo ci meew bu neex ànd ak mbégte bu l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor chocolat bi Moi a mon choco mon choco Amne tamit en verre CCBM industrie automobile distributeur des marques Volkswagen, Aval, Credwell, Sherry, Lovell et Sinotruck. Un service à de qualité avec un dépannage mobile 7 jours sur 7. Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Soklin technologie pour best ngir le arôme épicé resto soja resto Moui bagel Apton de corps crème hydratante ngir gi Apton Vos produits authentiques Belle Nubian et Françoise Bedon sont sur Sunushopping.com et d'autres gammes de produits corporels pour faire de vous des thèses. Téléchargez vite l'appli mobile. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Yes Hotel, Dakar Almadi. Radio Leral 96.1, encore plus proche de l'info. Avec Radio Léral Le Poiler Bravia Hotel Ouagadougou, vous aimerez déposer vos valises chez nous. Téléphone 00 226 25 32 97 97. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde une femme, un mari remercie ses partenaires stylistes. Commandez en ligne sur www.6.9.sn. 6.9, la marque de l'élégance. Complexe Sophia, M60, Fasha Style, Karima, Ladies Jewelry. Vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.heritagecouture.net Profitez d'une remise de 10% siapa menjapunya anda Berkenanya langgar Buku cafe lalu di nama gayu Tak kemebung cibat Diri menyu anda Wahai bumu saya tubuh nyap Loi tau bay ta no Baru mengeganyu wai Pul jai setaruh mata sorai Nikune tangawar Ferre ramping gadon Dagul panlano beye Bul de coragem, bul de coragem Mais atacandero hol Bul de coragem, bul de coragem Mais atacandero hol Infama mai

Je nga nekkoon mariage nga sais que jël le bi qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi le problème. Je ma ne daf may ak sama ex jëkkër te Nour kooku man rek la bañ su ne dama daf porter plainte ça c'est sûr mais femmes doomu jàmbur noo ko c'est extrêmement grave. jàmbur Kok sama jëkkër pas ko jur. qu'est-ce que ça veut dire femme Dom la Nour. Ça me la. Ah, Femme, Fama je comprends plus rien Les femmes. man je comprends pas nan nga mune nek si ci nga ëmb ba Je ne man mala la ëmbal. man sama am man rek xam te expliquer quelqu'un. femme lii yëpp man y a de choses yu louche sama bopp lu tax nga bàyyi autant de temps autant de temps nga doog ma ko wax tey. Nourou période boobu yaa ngi woon di politique te bu nit ñi xamoon ne da nga ëmbal jabaru jàmbur day yàq sa carrière politique te man bëgguma woon loolu ndax xam naa fan la la sa carrière tolloon te Nourou soo xamoon ne dam jabaru jàmbur laa kon danga may bàyyi te man mënuma woon supporter loolu. Fama il y a un très grave problème ça explique que bés bu porter plainte pour adultère on est foutu c'est extrêmement grave le may wax La solution que je c'est très simple wax ma sa xarit bi fu mu nekk ñu dem ak on trouve une solution ma j'ai un chèque blanc mu def def si lu ko neex ñu fay coow bi mu jeex. man man war Floria bi dañu ci liggéey boy man ak ñom cham sa ñuy seetaan match fo jaar mu ataay ci quoi ah on non dajé Floria dama ko tuddé dombu jigen jigéen muy doxantu ci kër gi ma ko Floria bébé war Floria je te jure ah, allez ça C'est kër mun ma Bonjour chérie. Bonjour. On rentre à la maison Rentrons. En tout cas, merci de l'avoir hébergé pendant tout ce temps. Je rek après ngeen jëm ko yedd. dit. Ah, déedéet defal Vanessa fi bu ñu yedd ñaan la ans de mariage ngeen nekk ci seen caf. yéen a xam nu ngeen du dundee du giite ngaas bu ndaw bii mooy ñëw di leen séparer. waaw mais waane woo rek sooy arrangé da ngay wax lu rafet mais doo nekk di critiquer nii yow daal tu es tout le temps donneur de leçon bu fàtte am na lu mën a xamal. kon noonu dëjë ba yow sànq li ngay ngand ngand la du xulli bët booy sa jabar ñëw ngay mel ne xaru yar man on su ma amoon doom ju mel koy xoj mu deyee booy ci lal hôpital bi yow la mooy sa problème yow kañ nga doon vrai tapet nga yow on oh, dirait venant de Paris lu sa da nga bëgg ànd ak chaque jour mën a kaf ci kaaf bi di la ya, yóbbu Guantanamo be bo yow mel donal gor bu yeboo ya, bu yeboo ya, nga may wax ah man bo eh man gor yalla la re man bo mo ne bu yeboo fat fat eh way yomb na torop yomb na torop Ma Fred ça tombe bien nag ma indil sama yére yi génn ki ñàkk na fayda quoi kenn ah yow boo ñëwee fekk momay kaas nga ñëw ànd ak man ci kaas gi chaque jour yaay xorom si di bu doon sérieux lañu xaar sa parole lan la yow la xalé eh, frère eh, la xal waxal. say femme la bête muy fonanteeg ben way 456 lan la mu ne. yow boy yow yow tay kër gi ñëpp problème quoi togal tay mom ya am secret da mu tey du dudu ba mel la glace. eh booy ma man duma dudu duudu non déggal ko affaire yooyu xam nga ne man du ma dund yooyu. waaw léegi xoolal ah, nga quoi. non non ça loolu man li ma la xam ma metti parce que tamit daf dafa ma bett quoi te lu la bett mën la comprendre nga li ma est-ce que voilà. yow moom yow moom yow moom presque yow moom yow nga yow yow doo jooy doo pat pat. nga booy jógee fii ma def métti na ma. affaire da ngay karaake. ah kon Karak frère yow laa wax léegi yow ngay jàmbaar nga koy gérer ngay góor yàlla kañ nga commencé jooy. jàmbaar daanoo na ah yow yow moom ci daanu rek nga dëkk. waaw parce que loolu la femme préférée mais du nii mais doonal góor tuuti. il faut que nous xolaat ko tout le temps problème ku indi ce problème qui ñew raconte li kenn du comprendre fi mo ñu fi kamil quoi. ay xarit lool mo leen war ngeen Ya yaakaar ni dara warul ñaaw seen diggante. ñu ñaan yàlla dara bañ a tu sais bu ñu passé temps kenn bëgg et puis des may imaginer sama dund sans ñoom <laughs> est-ce que dina am sens kon lu tax nga tëdd Fama. eh nga ni lan. yëg mais est-ce que tu penses que Fred mérite na est-ce que imagine nga Fred su yëgee lii. loolu xaru sax moo ma ko gënal. xaru après man ma ñàkk. yaay kiy dund maa ngi doo comprendre lan moo xewoon sama diggante ak yow waaye borom dëj bi mun na jooy dëjam. xolal nit ku nekk da ngay def ay erreur ku ci nekk yaa ak ay ba yoo teggil la kiiraay boobu ba ñëpp gis ko doota jara dara si ko suuf lii xew mooy erreur bi gën a mag ci sama dund te maa koy regretté mu ma metti mais lu ma ci mën nit ak erreur ñu ànd da ngeen may essayer comprendre yàlla mooy teggi sutura moom mu koy teggi saa yu ko neexee mais moom ma metti parce que xam naa kan mooy Fred da nga comprendre rek c'est

car je pense aussi être fautive à propos de nous, tu sais. Arrête, j'aime pas quand les gens pensent que d'un maragal. Ou bien être cette femme qui fait peur, cette femme dure. Non. C'est juste que je n'aime pas qu'on me piétine. Et aujourd'hui, quand je vois ces femmes soumises, qu'on traite comme une serpillère, ça me fend le cœur. Alors je suis obligée de, voilà, de mettre cette carapace-là. Mais je veux tellement être cette femme qui te comble, qui te rend heureux.

dinaa la kii sax. Alaaji Aji Faatu daf fi ñëwoon. Aji ñëwoon na fii mais li ko fi indi woon man je le savais déjà wax ma yow lan mooy sa soxla. ok Alaaji Aji dafa bëgg a yàq sama àdduna mais heureusement bi mu dalee ci ku mel ni yow ndax Alaaji yow nit ku baax nga. góor gënu la alaaji man li ma def sama àdduna yépp nga xamal ma ko te mësuma dox ci mbedd bi ba dégg loolu loolu saa prouve que ni nit ku am sutura nga lii nag chèque en blanc la yaay xool somme bëgg nga def ko ci alaaji man dama sikk te xam naa ne lu nekk def naa la ko sa àdduna méttit bu ne def naa la ko moo tax ma ne naa ñëw rek jéggalu si ndàmpaay la rek pour nga baal ma ok pour ñu jubóo y a aucun problème pour loolu mais à une seule condition ngeen bàyyi ma mu dund ak sama doom condition boobu rek moom moo mën a nekk

dom jom ñu nga sànni woon man maa ko yar ko tatagal ko ba mu mel ni mu mel kon alaaji da nga bëgg a wax keroog bi ñu tasee xale bi nga yoroon sama doom la awa li ngay wax yàlla xam na ni waxuma ko yow xaar ma rek ma ñëw man li ngay wax mën ma ko sa dégg si téléphone nga ma naan ay yow ki yow la <laughs> ah, awa baax na uy man daj yëgoon naa ne sax mbëkk naa la. yow da nga ma bañ ba léegi ba boo dajeek man ci tali bi sax bëgg ma mbëkk nan la nit di dawalee di yor téléphone. yoo xam nga ne man du ko tey di la mbëkk en plus dama la sóoraalewul woon sax gis la fii. maa ngi fi ba léegi deewoogu ma nga xalaat loolu bu baax. maay bàyyam maay léppam jooyul dara maa ko toppatoo ba mu mel ni mu war a mel su ngeen bëggee jàmm da ngeen ma bàyyi ak sama doom sinon c'est la prison. alaaji ngir yàlla jox ma sama doom alaaji mbay jëloo ma sama doom ngir yàlla alaaji mbay. Japal meja nyo anda Pagkana nyo langga Buko chafe lalol di gai. magay Takamabum chibat Diri man nyo anda Wahay Loi tubuhunyap Lloyd away dano menganyu bai Puljai setaro Alada famata sorai Nikune tangawara Fekhe kham kinga don Dagul panlano beye Bulde coraje, bulde coraje Mais atacandero khol Bulde coraje, bulde coraje mai sẽ ta kan de ru khoi va mai